Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Mbokki julit yi ma ngi len di nuyu fi ma len dan nuyu ci waxtu bi Delu si nañ ci sunu jotaay bi nga xamanteni mom lañ tuddé sunu jotaay yi nga xamné mom lañ tuddé. nari Omar Omar Sall yi nga xamné ak càllala la mu gudd lool bari ñu ñëw di ci leeral benn par benn jot nañoo def ñaar kon tey ñu ngi ci ñetteel bi ñetteel bi mooy Omar Sall dafa wax ne suuf yoone yi nee nañ yàlla dafa rëy a xajul ba looloo tax mu wàcc ci mbindeef yi dugg ci seen biir ma répété ko Omar Sall nee na suufi nee nañ yàlla dafa rëy rëy ba xajul fenn looloo tax mu wàcc ci mbindeef yi dugg ci seen biir subhaanallah subhaana allazi qaala laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir subhaanaka subhaanaka allahumma haza buhtaanun azimun haza buhtaanun azimun mbokk yi lii day fen yu rëy la wax dëgg yàlla man su ma demee ba ci biir boo xoolaatee dama dul xam ba xam lii ak mën a fenam la walla boog ak ñàkk xam dëgg-dëggi pas-pasu ëllu tasawuf la parce que bépp wax bu mu wax rek daanaka boo ko jëlee comparé ko ak mutasawwifuuna yi nga xamante ni seen euh, niñ koy dundee noonu lañ ko war a dundee boo ko comparé ak seeni wax rek day mel noo xamante ni euh, comme yàlla ak ndax bu fekkee ne nekk na fi di wax wane ne suufu yoon yi nee nañ yàlla dafa rëy rëy ba xajul fenn looloo tax mu wàcc ci biir ci fi dugg ci seen ci seen biir nga xam kon day mel da nga naan suñ mbàkkee buso abul baraka yàlla mi ngi ci biiram abdou xafoor mbàkke yàlla mi ngi ci biiram abdoulahan mbub yàlla mi ngi ci biiram waliyansu bi Euh, sëriñ Mor yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi ci biiram képp koo xam ne mi ngi dox daal yàlla ma nga ca biiram yàlla ma nga ci biiram wala yaasu billahi ñun suufi yi lii mooy sunu pas-pas muy fen wu rëy muy fen wu rëy ah, ñun dey wax dëgg yàlla fi ñuy njëkk a tàmbalee mooy li mu wax ne ñun dañoo jàppe yàlla mu doon jëmm ju rëy premièrement mooy ñun dañoo jàppewul yàlla sax mu doon jëmm bay doon lu rëy lu tuuti ñun dañoo jàpput yàlla mu doon jëmm bay doon lu rëy ak lu tuuti safaan ba kay moo am maanaam boroom xam-xam ak ku ñu wooyee boroomu xam-xam ba pare mu doon koo xam ne day jàppe yàlla jëmm ba diko wutal ay tanka ki ay loxo ki ah, yu doy war loolu mom ci ñom rek nga koy fekk waye ñun mom dañu jappé wut yalla mu doon jëm bay bay doon jëm ju reuy ak jëm ju mag ak ju tuti te itam dinañ indi belil inshallah ñom ñoo ñi nga xamne nak duma wax ñom ñëpp ndax rek mom man dama koy watandiku ndax nama yalla wal rek def waaye daal man xam naa ci ñoom ci ñoom ay boroom ñu ñuy tudd ay boroom xam-xam ñoo xam ne dañoo jàppe yàlla jëmm te nag loolu buñ delloo ci boroom xam-xam dañuy daañ takfiir ñu mel noonu moo tax boo demee ci asxalul masalik euh, te moo am benn saraax boo xamante ni mu ngi tudd siraaju salik borom téere ba dafay wax ne wa zobti daain wa atisalin fussiqa min gayri takfirin siwana fi liqa ñi nga xam ne dañoo topp bidaa ak ñi nga xam ne Euh, dañoo bokk dañoo def ak ixtisaal nekk mu'tazila ñooñu ay faasix lañ leen di jàppee te kenn du leen takfir des fois wax ne ay yéefar lañ lu may koo xam ne dafa dàq dajeeg yàlla daje gi nga xamante ni moom la sunu borom tabaraka wa taala war a dajeeg euh, ëllëg jaam ñi su ko weedee su boobaa day jàpp ne ab yéefar la aw qaala bil kulli rabbi alima min doon gis iyatihi wala boog bu fekkee ne waa ji euh, bidaam àggal na ko ba ci ne ba ci jàpp ne am na la sunu borom xamut ci mbir yi am na lu mu xam euh, waaye am na ci loo xam ne xamu ko su boobaa itam dañuy jàpp ne loolu ak kéefar la waaye gis nga bi ci am solo muy aw jas sama wala mu jàppe yàlla jëmm ju ne léng kon lii la boroom xam-xam yi daan wax borom asxalu asxalul masalik nee na nit ki bu fekkee ne dafa yàlla jàppe yàlla mu nekk jëmm rek loolu bokk na ci li ñuy sukkandiku ba takfiir ko bu fekkee ne nanguta tuub génn ko ci lislaam te ñom da ngay dugg seen bir fekk fi ño xamanteni dañuy jappé yalla jëm te lool nak am nañ ci dalil yu leer nañ ni way duñ fi nekk di ko di xotal ndax ku dem seen i fekk ko fa kon loolu ci ñom nga koy fekk ñu jàpp yalla mu doon jëm waye ki jappé wut yalla mu doon mënta ah mënta wëlbatiku nak di jàpp yalla muy reuy wala muy tuti ndax jëm kay moy reuy wala mu tuti waye ki xamne dafa dakal ne yalla sunu borom tabaaraku taala dafa doonul jëm sax koku meuna a diko di ko di ko ne mom dafa japp yalla lu reey mbalu tuti bay tabbe ci bir nit denga nga mom neena kon suuf yoni neenañ yalla dafa reey reey ba xajul fenn lolo tax mu wàcc ci minde fi duggu ci sen bir lolo muy fen wu reey reey reey ñu delu ci serigne touba ci tere bi nga xamne mom moom wax mawahibul qudus ci safha kaat euh, euh, bi muy maktabatu Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi fay wax ne fa laysa maxluqan moom yàlla du ku ñu bind kenn bind ko ku dul ku dul moom nag dañ la bind bindee ko waaye yàlla mooy ki nga xam ne moo am te kenn bind ko fa laysa maxluqan ñaareel bu mooy wala maxsuura yàlla sunu borom tabaaraka wa taala nekkul ku ñu takk maanaam nekk fi béréb am lu ko wër yàlla melul noona loolu itam ba tey day fen lu am Omar Sall ndax bu fekkee ne laysa maxsuuran te Omar Sall yaangi ngi wane ñun ñun suñu ñun suñu jëm dañu gëm ne yalla mi ngi suñu biir euh, bu yalla dafa nek suñu biir kon ñun amna luñu fekk manam ñun ñoo pek yalla wala bu fekkee ni pegu ñalla itam néeg bu nekk néeg bu pek na yalla ndax ginaaw bo ne Omar Mbacke mi yalla yalla ngi ci biiram kon Omar Mbacke neg bu mu rek waliyansu bi la pek nako kon bu ko peegee te yalla ngi ci biiram kon peegaale na yàlla te serigne touba nee walay sa maxsuuran yalla da ko ñu tak maanaam nekkul koo xamante ni euh, maxsuur la dañ koo takk nga xamante ni de mbir mbir ko wër mu nekk ci biir kon sëriñ Touba weddeeti na waxi Omar Sall mii des na ci xam itam ne ndekete li mu doon wax lépp ay fen la ñaaral bi itam gis nga yàlla euh, maanaam sunu euh, sunu sunu borom tabaraka wa taala moom moom mooñ njëkk wax ne lay sa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir waaye Serigne Touba daal wax ne bi mu ne fa laysa maxluqan wala maxsuura lum ci rek dafa wax ne wa laysa maxmuulan du ku ñuy ëmb ku ñuy yannu maanaam xam nga tey Omar Mbacke bu fekkee ne dugg na ci bot wala mu dugg ci avion wala mu dugg ci saxaar wala mu dugg ci oto dañ naan oto baa ko yanu bu fekkee ne Omar Mbacke dafa nekk ci kaw étage dañuy wax ne fondement étage ba ak étage bi këru suuf gi moo ko yanu yàlla nag melul noonu Serigne Touba neen yàlla melul noonu amul dara loo xamante ni moom moo ko yanu euh, taaw denga nga te Omar Mbacke be day am lu ko taw legui nak bu fekke ne nak bu fekke ne nak manam Omar Sall neena ñun mu tasawi ne dañu gëm ne yalla mi ngi ci sunu biir ndax gi reey bu mën ta xaj fenn <laughs> waaw mok kon day wone ne kon su Omar Mbacke nekkee ci biiru avion wala mu nekk ci biiru bata kon bata bu mo taw yalla ginaaw neena Omar Mbacke mi ngi ci yalla ngi ci biiram lolou moy fenn yu fen wu reey reey reey la te ñaaw lool ndax lim ñuy askanale ku ko gëm wala xiyansu bi di yéefar waaw ku ko gëm di yéefar yan nañ ci yàlla musal kon sëriñ Tuubaa ne na yàlla walay sa mahmulan su koo taaw amul lenn loo xam ne mën na koo taaw wala maq ko nekkul itam koo xam ku ñuy la kenn du ko sëriñ Tuubaa daal di wax ni itam ne aw an takuna zaatuhu muttasifa bi kal xawaadisi fa kun za maarifa melokaanu sunu borom yi tabaaraka wa taala amu ci benn maanaam jëmmam mënta nekk mënta nekk di doon loo xam ne day melawoo melawoo xam ne melaw ko sasu la ndax mbindeef buñ ko gisee rek dafa sasu waaye sunu borom tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne deful wax ne dafa sosu ndax euh, euh, dafa wuute ak li nga xam ne moom mooy alxawaadis mbool mi nga xam ne dañoo sosu rek ki nga am te dara amalu ko mu kon na nga xam mu aw an yakuna zul Jalal bi sigar muttasifan subhanahu aw bil kibar loolu nag mooy li nga xam ne moo gën a leeral fenam yi feni Omar Sall yi Sëriñ Tuubaa nee na yàlla mi nga xam mom moom moo màgg ko melal mukk di wane ne dafa aw an yakuna zol jalal bi sigar nekkul koo xam ne dafa nawe mu tasifan subhanahu aw bil kibar nekkul koo koo xam ne itam dafa mage kon ay rëy ak tuut yooyu lépp la sëriñ tubaa daqal sunu borom tabaraka wa taala ndax dafa nekkul jëmm sax bay rëyee ko tuuti de desul wax ne jëmm la ndax laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir léegi nag ginnaaw sëriñ tubaa nee na Euh, yàlla sunu borom tabaaraka wa taala kenn du ko melal ci naan dafa rëy rëy rëy waaye kenn du ko melal ci ne dafa tuuti tuuti dafa tuuti léegi nag Omar Sall daal di ñëw fii di fen naan soo fi yónnee nee nañ yàlla dafa rëy rëy ba xajul fen looloo tax mu wàcc ci mbindeef yi dugg ci seen biir xoolal ma fen yi rek sëñ bi ku mën a fen fen yu mel ni dees na ko déglu ci diine nañ waxante dëgg nag nañ waxante dëgg lii mënta nekk te moom lii moom xam xam ba pare di fen rek la mëna nek nekk li lii mënta nek njumte mënta nek njumte dégg nga moo tax sëriñ Tuubaa daa di wax ne kamis li bor ghosin wa zarratin wama bil fil aw bil karkadan wusima neena yàlla nekul ko xamne ne dafa tuuti ba tax ñukoy ba bay tolni aw fel wala bok mu mu tolne li nga xamne mom moy zarra mu ne wama bil fil réew tam ba tax ñu nan dégg ma aw ñay la dafa tol ñay wala bok kargadan kargada kar karkadan karkadan rabla rab la ci rabu da fay dafay dafay réyir lol ba pare am ben sanru bejeun ci li nga xamne mom mo tim bakam bi mune yoy yep ken du ko melal suñu borom tabaaraku taala ndax laysa ka mislihi shay'un wa huwa samil basir kon lepp luy xetu guddak gudek, ndolak ak yoy yo serigne touba tuwada daf ko dakal ah yalla suñu borom tabaaraku taala ni ko ko sawi fone dakale léegi nak mu ñew daal di wax ni ñun dañoo fasna yalla dafa reey reey ba xajul fenn motax mu wacc ci biir nit ñi ta loolu sax mara de tali dafa dafa am contradiction naka nga waxee ne mën a ne yalla sunu borom tabaaraka wa taala rëy naa reey reey reey rëy ba xajul fenn ba pare nga naan dugg na ci biir nit loolu waxi nit la ginaaw rëy naa ba ba ba dugg ci ba mom ba xajul fenn nan lay xajee ci biirum nit lool loolu sax moom waxi daf la gën a nuru moom ala kulli xaal yàlla nu ñu yàlla jubal in uridu ila al islaha mastatatu ma tawfiqi ila billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu